Luma ma dencal moo ma soow ak ginaar ñu yi à vous de juger kokoy Matar Samb entrepreneur bi nu maam